وإذ يكون مسلما يا ذا الثمن أذهب فورا اللسان كل من وإذ يكون محسنا يا ذا الثمن نفتنا بأفضل الإيمان فلتفير جميع بالأمان حفظنا بي وبالإسلام فلنبهد الكل عن المنام قدمنا سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من أمدا قل الصلاة والسلام أبدا لهم كما أقصيت من لم يعبدا إلى النبي خد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منسل الكلام على النبي محمد والآل سلم وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى المختار يا باغيا جال المختار نافع صل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بتسليم واذكر كتبيا نافي وسلم وسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاة العرش العظيم سمدي على النبي وآله والأمة ودمك عند الإداء إلى العداء يا من أباني بمخجل النداء أوصل لكل مسلم ومسلمة ماسرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لسف المؤمنة مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستصنة وجيل أمتي رسول الله علي خير صلوات الله واجعل همة رسول الله علي خير صلوات الله واجهل أمة رسول الله علي خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمن يا ولي شكر يقول لي كن فيكون هاجي منك بلا إقد ولا تهاجي نمد إبليس لغير أبدا في زهر ساب كل من لم يهبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وصنوا مخجي لمن لم يسلموا كمل لأمة النبي صلى الله علي بتسليم رب جل إجابة تساسي الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافح يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير المرسلين أن الذين كفروا بالرسل قل لهما نظر عزيزا آجلا وبشرهم آجلا وآجلا خذ لسوء الإيمان ما يزيد يا مرحب إنكم مسيد خذ لسوء الإسلام أن ركوني إلى إداك وأن الشكوني على النبي والرسول منتهد صل وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من لا خلق كمال الأمور يا مغني نحن عن الضمير Seydou président Ousmane Sonko mi noonu président Ousmane Sonko mi noonu mi ngi noonu di génn président Ousmane Sonko mi noonu ñu gis ko lii saa si teewaayu président man baara sunni alhadis wal furuha kal للذين امتنعوا من المتاع président Ousmane وافح بالخير كتاب والفروح ما الأهاديث سها إصاب روح أعطيتني جميع دون سلبي ولتقود سهل وقت طلبي لأوسل الذي أريد وانفعي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 dañu nekk ci xew-xew boo xam ne wax dëgg yàlla diis na ci ñun. ñu ñaan rek mbooloo mi ñëpp ànd ak dal te képp koo xam ne mën nga ko ngay jàng lixlaas di ko yéene way dawlu yi. Seydou. ñu ngi lay nuyu ci la ziar ci bés bu tedd bi di la jàllit bokk sa diggante aji dem ci ah, moom de di ko ñaanal yàlla rek sama xarit la woon sama jumeau la woon sama seex la woon maa ngi ni dem si guddi laa jóge Paris ñëw man ak moom ñoo nekk noonu France bi mu feebaree ba bëgg yàlla di moom ñu toog fa ba organiser levée du corps bi altine dem si guddi nag mu ñibbisi pour mën ñëw fii témoigner ko gungewaat ko parce que nit ku baax la woon. relation yi ngeen am gis na ni sa xarit la ku ko jege woon nga. waaw bi nga xamante depuis 1900 82 def na 42 ans boobu xale lañu ñu woon ay adolescent la woon boobu maa ngi nekk Paris moom mi Paris dem Paris donc boobu léegi la ñu xamante mu nekk premier ministre ñuy continuer di jàppalante ba yàlla jël ko donc nag moo nekk daal koo xam ne daal am nañu daal lu ñu métti mais yàlla moom kenn mënul xëccanteeg moom dañuy am nañu nag ñort bu ñort bu rafet ci moom bu la yàlla moomee fukki fan balaa ci biir koor gi. ba pare ñu ci la tey ba su korité ah dañu sant yàlla rek. nga bokk ci ñu mujjee gisanteeg moom. s'il vous plaît. presse bi d'accord ba tey li may wax rek ni euh, président Cheikh Seck mi ngi noonu moom décès bi ci kanam kanamam la amee fexe na ba lijjanti corps bi ba mën a ñibbisiwaat ci jàmm ngeen gis ko ba tey ñu ngi si direct bi ñu leen toppal fii ci principal muy levée du corps euh, nga xam ne moom mooy. Boun Abdallah Dionne Thank you. kon baax na ñu ngi ci wàllu ñaan gi teewaayu président Ousmane Sonko teewaayu autorité yi kilifa yi ñu ngi ñaan yàlla suñ borom jërëm ko yàlla yaatal bàmmeelam te yàlla xaare ko àjjana nga gis ne principal daal nit ñëw nañ amas wax dëgg yàlla ndongo caam sànq moo ubbi xasida gi jàng ko ndax bu Abdallah taalibe la woon ngeen gis woon amin barke sëñ Tuubaa amin amin amiin amiin ngi noonu liy pour mu génn saydu fii la porte bi la koor bi war a génne ngeen gis ko Là, c'est fermé, c'est plein. gis na ko Seydou nga noonu président Ousmane Sonko teew na tey fii ci levée corps bi ngeen gis ko ah gis ne Cheikh Seck gis ko noonu moom moo ah, ko taxaw bi mu nekkee France yi yépp ba mu mën a ñëw. muy mooy xaritam neen xamante ne depuis mille neuf cent quatre-vingt-deux la ma xamante muy président Cheikh gis nga ko noonu gis nga ko gis noonu ci gis nga bi génn bareetul te du koor baa ngi noonu li des pour mu génn bareetul leen gis ko seex bi macha <laughs> ko noonu alindo yu ngi noonu meeru dakaar Plateau mu ngi noonu euh, gis ko noonu Seydou koor bi li des pour mu génn bareetul mais bis bi nanu koy bàyyi xel nee naa toujours xëccoo bi baax na waaye nanu xam ni lépp li ay dëgg ndax euh, muy parti pouvoir muy opposition kenn ku ci nekk da nga xam ne lii rek mooy dëgg tey xàmmewu kii parti bi la bokk parti bi la bokk kenn ku ci ne rek li la fi indi mooy jëmmi doomu aadama ji cest à ah, koor baa ngoogu di génn di ñaan suñu boroom xaare ko àjjana di ñaan suñu borom yaatal bàmmeelam di ñaan yàlla na rëcc lu mu doon def ci kaw suuf yàlla na ko suñu boroom yërëm te jégal ko yàlla na ko yàlla xaare àjjana njabootam a ngi noonu tey muy tàggatoo ak ñoom jëm ci kër dëggam ah, moment yi muy moment yu difficile di moment yu métti yoo xam ne tey bis bi tey lan la ci nit ñi war a jàng. amiin niñ ci mën a jàngee mooy comme tu l'as si nit ku mag dem na ci senegal koo xam ne ku yaru ku dal ku teey ku liggéeyal askanu senegal man mii maa nekkoon. Euh, son plénipotentiaire à Dakar Plateau ba pare man maa nekkoon le président de la commission en charge du tourisme wax dëgg yàlla muy nit koo xamante ne une personne exemplaire koo xamante ne lépp lu ko yiteeloon rek mooy liggéeyal dëkkam ak askanam donc bu baax jóge na fi wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ngi koy boole di ko jàll Sénégal di ko jàll àdduna bi di ko jàll surtout ay mbokkam. non seulement liggéeykat bi mais mu nekk nit ku yaru ku joxe cër. cëram jéggi na dayo ndax bi mu fi nekkee xam ngeen ne grève amatu fi nit ñi deewuñu coow amul lépp lu doon am réceptacle la woon moo ko daan réceptionné intercepté ko balaa président de la république di ko yëg vraiment il était quelqu'un qui était au service di peuple sénégalais amul nit ku ko gënoon. loo koy ñaanal tey tàggatoo loo koy <coughs> lu koy ñaanal tey li ma koy ñaanal tey ñaan li d'accord. kii baax kii baax na Seydou. kii baaxul. gis nga ko noonu Seydou ñu ngi noonu di. continuité de l'État démb ak tey nag ñu taxawee muy ñaari président yi nga xam ne jokkalante nañ teraange yi ci kilifa kilifa yëpp premier ministre du Sénégal suñu mbokk suñu xarit Ousmane Sonko fekkoog nag ak ñu bëri xam ne tey war nekkul premier ministre ci Sénégal bi ma ràññee ci Abdoul Mbaye ma ràññee ci premier ministre ngeen gis ko noonu ba tey li may wax rek mooy que ni ok maanaam. nekkul woon ko noonu Seydou naaj na waa koy Seydou soo si eggal suuf amiin barke Sëriñ Tuubaa ndax wóoroo bu ñu ak bëgg bëgg ba pare nekk ci ak seen la noonu c'est discours bi nga xam ne moom la loolu ah wax kay. ñoom ñoo war a arrière nag. ko ñoom ñu arrière quoi. taxaw moom baaxul sax. paa ñu wane am cadre. paa bi nii. mu gën a tafu tuuti rek. tafu tuuti ak yow. wàcce ko tuuti. waaw kooku dafa aussi daal kooku dafa daal kooku dafa waaw daal ko daal kër tafu waaw aussi waaw ku ne daal moromam tafu nañ dem voilà. Mhm. ramasse. wax ne jëmsi dëgg bàyyi woon na xel état bi Cheikh de lu ci barab yem ci barab lu mu mën a doon li muy gàtt gàtt nit a gën a gàtt ndax nit ku ne fekk àdduna fi nga koy bàyyi waaye nit ki muy gàtt gàtt ak man moo ko gën a gàtt ndax nit doo mënal sa bopp dara soo ñëwee àdduna te léeg-léeg man néew doomu aadama jëmm ji tëdd nag bàyyi woon na xel mais manu àdduna bu gàtt feesaloon dell dundam ak laamu ak servir muy liggéeyal diine ji liggéeyal réewam liggéeyal doomu aadama yi kon nag bàyyi woon na xel gàddu àdduna àdduna nag dañuy ñaan fan bu gudd waaye fan bu guddee fan bu barkeel la ko fan bu gàtt moom fan wu ñu euh, ci def jeexal ci sëñ bi fan wu ñu jeexal ci njàmm yàlla ku jëm jiitëdd loolu rek la dem ñoo ngi wax nag parti ñu fi jël ci turu imam Thierno sëñ Moussa Bachir sëñ Galas Kaldo mi nga xam ne wóor la leen lool waaye di ko wax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ak sëriñ Moussa Nawel ak sëñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moo doon sëriñ Mouhamad Bounatoula Dione sëñ Ahmadou Mbacke sëñ Moussa Bachir sëñ Moussa Bachir moo ko boole woon ak Mouhamad Bounatoula Dione ne ko dañu jékkul ci moom ndax diggante yi ca maam yàlla woon maam yi Mouhamad bin Abdoulaye Diop mi moo xamante woon Serigne Bachirou Mbacke ibn Khadimu Rasoul ñaaxee yóbbu na ci moom ginnaaw bi booy juru Mouhamad bin Abdoulaye Diop bi taaw Serigne Bachir di Serigne Moussa Bachir ba ni Serigne Moussa Bachir boolee doomu Ahmadou Mbacke Mouhamad bin Abdoulaye Diop Serigne loolu moo tax ñu teew ci turam ngir jot si kàddu yi suñu borom nag moo wax ne maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma nit ak jinne dul jaamoo jaamu yàlla nag xam nañ ko ci julli xam nañ ko ci woor xam nañ ko ci azaka xam nañ ko ci jaamu yàlla yëpp waaye dara tëddul kaw jaamu yàlla ci jaami yàlla yi muy jëfal nit ñi muy dimbali nit muy liggéeyal nit ñi muy liggéeyal sa réew Mouhamed Boun Abdallah ci loolu nekkoon te mënees naa rafet jot itam ci moom Sëriñ Chouaïbou Ibnu Xaadimu sol dafa bind ci téere Qurratul ni ne li màndargay ci jullit ne dexe na mooy jullit bi du faatu ajjum bokk na ci itam màndargay liñ mën a rafet jot ci jullit ne dexe na mooy mu faatu weeru koor ñaar yooyu yëpp daje na ci jëmm ci tëdd fii kon mënees naa rafet jot ci moom danañu rafetlu teewaayu ancien premier ñi nga xam ne nekk nañu fi ak président institution Abdoulaye Daouda Diallo ñu koy gis di ko nuyu ñu nuyu aussi ancien président chef de la nation Pape Diop di nuyu ancien premier ministre patronat bi teew nañu président Guèye Diagne président Mbagnick Diop Diallo Mbène Diagne Seck ñu si nekk ñëpp wax dëgg yàlla ku ci nekk ko jàppal ak yi dina xàmmee sa kanam. ñu jéggal ma rek ndax ñun dafay fàq képp ku ma rek nga xam ne suñu borom suñu borom bi am naa yéene dugale ndax ku ci nekk moom ma bu li sa ban borom boobu ñoom ñëpp Cheikh Diop kon nekk mag ci Mouhamed ku nekk xàmmee naa naa même ma tënk rek moo tax ñu jéggal nga xam ne bëgg ko ni ma ko bëggee ne moom ne professeur ko yéen a bokkoon coalition أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال وهو الذي خلق الموت والحياة الحمد لله رب العالمين tey sunu wax association. waaw su ma lay wax ndax aw ma problème dëgg man daf ñu jege woon loolu. Serigne Cheikh Diène Sène moom fi mu ne naan di kontaan ni mën a wax. su amee gis ba mu mën a wax. mën naa wax ni ñaari sax ñoo mën ndax kii dëkk. kon bàyyi ma bàyyi noonu rek dama laa rek. dafa newoon nit ku sell